parfum de classe yi ci nous bi am déclinaison At Beyaz. Beyaz Blue Seduction. <laughs> Beyaz la vie est belle de Lancôme. Yes. <laughs> Beyaz, baccarat rouge, unisex. <laughs> Béaz, Manifesto, Yves Saint Laurent. <laughs> Tainak, la petite robe noire de Guerlain ngay la petite robe noire de Guerlain Béaz. surprise Yaona, Tay, Béaz 1 million ngay Béaz déclaration de quartier. Béaz Olympia.

leen xamal ne sëñ bi sëñ Cheikh sëñ Cheikh Amadou Mbacke ñu di ko wax sëñ sëñ Cheikh Say moo nu jox ndigal fële ci Belal Touba Belal boo demee Belal rek ñeenti kilomètre digg nekk Belal ñu war ko ruuj fa demoon nii léegi doon ko wëri waaye liggéey ba nag gannaaw sëñ Cheikh Say moo nu ko jox liggéey ba dafa war a gaaw te dafa war a set wicc wicc wicc ba bu sëñ bi ñëwee bu ko gisee rek bëgg xolam sedd mu gërëm nu ngërëmam nag sunu njëriñ la moo tax lañ euh, ko def ni mu ko bëggee rek bi ñu bi ko sëñ bi yégee nag sëñ Abo mu wax ne ñun ñu fay teew ñëpp yàlla nañ ci am ngërëmul sëñ Tuubaa ak ngërëmul Laaji Fallu Mbakke ci saayir ak ci baatin ngërëm li ak tuyaaba yi yàlla na ko ci yàlla defal loolu la sëñ Abo wax moom naa leen woon dama jàllale ko rek maanaam liggéey sëñ Cheikh Seye daal dafa nekk loo xam ne bu bu jógee dafa war a dafa war a mel ni mu ko bëggee rek moo tax dafa liggéey ba daan lañ fexe ba mu gaaw lool te rafet lool ba nga xam ne bu sëñ bi ñëwee rek bu xolam sedd ci guy bu gëlëwee mu gërëm nu bu nu gërëmee rek suñu njëriñ lay doon sëñ Mortala Fall mi doon wax waxoon na ko ba noppi yëgle woon na ko ñëpp dégg nañu yëgle ba mu leer lool te rafet lool waaye lii dama dem ba seeti wëri tool ba ñëw rek di ko ci dolli ak li sëñ bi sëñ boo lim ci lim ci wax ma di ko ma di ko leeral loolu rek tax ma sànni ci kàddu waaye ni ko sëñ Mor Talla Fall ak sëñ waxee moo ko sëñ Fallu Jatara nañ ko tërale ci wax am na solo am na solo loo leer na nañ itam nañ ko dégg noonu li ma ci li loolu rek a tax waaye ñoom liñ ci waxoon doy na. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu